ko man du ma taay fii. musoo ci àddina. nan la def non non kii laa wax. kii mooy taay <laughs> mais aussi dama bëgg ñëw ci beneen côté bi mooy euh, nañu bàyyi di ju di juger nit parce que ni ma gisaatee beneen côté bi mooy gars bu baax comprendre nit ku nekk yaa sa bopp ji su ma neexoon tey ji dem ne dama xeesal ma dem xeesal sa man la comme xam tey ci loo gis looy wax xoolal bu baax nañ ko ciy waxee te bañ di juger nit parce que tey ji jëboot bi ñi la ñuy gis mais xamuñu lan moo nekk ci xolam loolu la bu nekkee loolu la def je ne pas mais bu nekkee loolu la def moom la concerné ak lu mënti doon c'est sa vie c'est ci bëgg ba defoo si bëggoon man li ma ci bëggoon wax mooy ñu def ci jàmm déjà kii wax mooy juum bu fekkee ne dafa juum na toogaat ci plateau Sénégal bu mu toogoon mu jéggalu ko que li retiré parce que sa liggéey ngay juum ci ngay amee ay dog-dog nañ ko defam rafet te bu fekkee yow ngeen ni mooy leena ngeen wutama ko parce que li mu def dama kaa bëgg def man mais yow nii eh, eh, baax na taxawal taxawal taxawal lan nga wax noonu la koy répété li mu wax non dama ne. man kenn ni ma wax lu leer dama ne bu fekkee yor ngeen numéro leer na. Mm-hmm. mun na ma jox fu mu defee. Mm-hmm. ak ñaata la ñuy defee mu defee ma défi damaa bëgg def comme moom. Mm-hmm. lan moo tax nga bëgg def. gis nga ah, wax daal <laughs> est-ce que xam nga jigéen. ko kii nee na ku nekk ak ñu la yàlla bi bindee ku nekk tam ak ñu la dàmpee ñi dañoo am yaram ñii am mais xam nga tamit yow mënoo am borom kër. genre mu nekk mécanicien mu nekk chauffeur wala mu nekk journaliste xoolal xam nga comme caméraman li ñuy téye yëpp dëgër mm-hmm. mu ñëwaat ci kër gi di làmbaat muy dëgër mm-hmm. xam nga loolu mënul nekk mm-hmm. loo xam tam day nooy jox la motivation jigéen fépp foo laal ci moom dafa war a moo tax nga bëgg nga bëgg nga bëgg mu yóbbu da nga jàpp ni dëgëroo yow kan déedéet man xeeb ma sama bopp macha allah mais yokku yokku cere doolu ñeex loolu yàqul dara bu fekkee dafa def na ma wax fu mu defee bu fekkee defewu tam yaram bi ni mu mel moom wax dëgg yàlla man rafet na ci man. Mhm. ni mel daal jongo waaw jongo ma na. Ah. Mhm. moom nan la gisee moom nee na ak service yi. non man damay dégg jigéen na naturel naturalité amul parce que tey yàlla mi bind jigéen ba mu rafet moo autorisé jigéen mu yokk xam nga góor du takk oor mhm. jigéen day takk oor jigéen day fuddanu may neen ko mu teggi xeef parce que. te xef boobu ban ban islam la loolu. kan moo ko autorisé mu teg xef. non xam nga ke xef ak mees ak yii yëpp. emaay yëpp mën nga ko def. Hmm. dañ koy def mais santuñu ñu ko. no mën nga yokk mees déjà ak greffage. non non yàlla nga def lépp jamono bi nga gis règle xam nga doo julli. la hmm. ne en dafa lu mu àtte pour toujours lu mu aaye pour toujours am lu mu aaye pour circonstance. ok bu fekkee jamono boobu mënoo julli yooni emaay du problème mais soo defee emaay munoo jàpp nag. Mhm, du dugg boo defee mees munoo jàpp mais su dee jàpp mën nga def mees amul problème. ci jigéen ci jigéen amul problème loolu yàlla moo ko santaane yàlla la wala yow la. yàlla yàlla. Mm. Mm. amul jabar amul jigéen moom yàlla la mais ñun dañuy moytandiku loolu lu bari mais sa biir kër génnuloo yàgg sa jëkkër yéen a nekk si kër gi mën nga meesu émaay yokk sa xef. sol sa talon yu gudd. def sa bikini bu ndaw daagu ci kër gi. day wàññi naqar am ñàkk naturel boobu noonu dafay tax parfois xale yu jigéen ñi ñuy sol genre. non non non dama la bëgg a xale yu jigéen ñi. Mm. su fi jigéen ñi kese nekkoon du chirurgie. mais ñun góor ñi la ñoo bëgg forme bu baax man jaral na ma ñàkk liggéey. mais est ce bien sûr bien sûr buñ nekkatul. alalu ko sàggan ko farlu loolu voilà conséquence yaa nekk noonu. non conséquence mooy parce que tey jii bu nekkee def nga ko. mun na rafet moo tax xam nga lu mais doo jug suuf loxo. loxo loxo bu la bàyyi loxo taxaw doo jug ci loxo. fi jigéen bi fi jongo ma góor téye la. Mhm. nam lay téye nag yaa koy déterminer mais ku jongoma ñun jongoma rek la ñuy wër dañuy liggéey ngir jongoma di jàng ngir jongoma di sañca ngir jongoma ñoo fi ne. donc mais lan mooy naturel lan mooy naturel yow bi nga juddoo den la dam am nuñ la doon tëddale pour nga am penk mais lan mooy naturel naturel laa xamul lan ngeen ko tuddee kuñ fi dàmpul nga tàmp <laughs> suñ yaay dañ ñu daan den daan dàmp seen doom jigéen ba am ñu leen di tëddali mm-hmm, mm-hmm. jàngal la doxin mm-hmm. jàngal la waxin jàngal la sa lamsal mais lan mooy naturel léegi nag science ñëw na ba mën a toojaat say ween yoo nàmpaloon ba mu daanu mu defaraat ko yàqul dara bu amul conséquence ah. am na lan defar ween ak forme parce que man damaa bëgg jigéen mais te tey ansi nga mën koo defar ba mu baax kenn bañut loolu léegi tuñ sa den koy opéré. ah kon kay ngoone wur wur wur wur wurul. kii moom bis bu waree yokk te procureur auto wul man ma génn ci réew mi dellu gàddu. ndax lan sérieusement. ndax mu jub taxaw ngeen jël ko. kanam gi jub ni ku jaay. <laughs> non non pour nit ñi xam li ma bëgg a wax. parce que yow den laa gis nga. toog man aw ma importance li may wax mu am importance. non man maa ne. boo demee chirurgie. te procureur autosaisirul ci yow ci. trouble trouble na trouble à la ordre public heurté public man ma génn dellu Gambie. parce que nii mu mel bi mu duggee yàq na fi lu bëri. mu war a chirurgie kii na jóg taxaw rek ngeen wane man li ma <laughs> xam-xam lay wax du taxaw ah? Ah, xam li may wax nan la doonee dëgg ko day ma toog quoi donc tey science moo ñu jox montor yow heure julli foo koy xool du montor mm-hmm. science indi poudre moom mii mu poudre poudre la yow mm-hmm. ngir sa image mën a baax ñu ne neen naturel ba tey mm-hmm. ci yokk yi lay wax moom. mais ci yéen ci biir yéen ko wax sànq dafa ko déglu. mooy sa tey jii bu nekkee poudre laa def su ma paree dama koy dindi non moom laa la xam nga tey. Ousseyn dafa wax sànq lu important ci ñàkk naturel bi. da ngay dem marché HLM wala yeneen kii da ngay gis mooy kii yi ñuy sol mooy bàyyi xam nga loolu tam nit bu la si takkee si noonu. bu ko xëccee mu day ci. sañse la rek na rafet. mais Ameth mais sañse loolu. mu defar sa koor bi ba mu rafet mais c'est bien beau. waaw fekkee nit loolu la gis ba takk la daal bu ñëwee ba nga simmee ko. non xam nga tey mbetteel day am fu ne. jigéen ñi dañuy dugg ci góor gu jantal. gaare oto bu nooy fekk frite bipp la yor bu naanul àndalaa du dem neen waxante dëgg mbetteel fu ne lay am da ngay sëy góor fekk moo dàq fen ci àddina fen rek layu def lu mu la wax du dëgg mais ñaata jigéen la ñu nax ci personnalité l'islam mhm. nax leen ci personnalité xaalis ba takk leen fekk nekku fa mhm. mais bu ñu la naxee ci ans ça va xam bu ñu ko simee sax dana sew mais la nga war a jëfandikoo këf gi mu ngi fa te këf gee la ñoo rek waaw c'est bon man bañuma yooyu yooyu du mhm. problème mais képp ku sañse dafa war a rafet mais sañse sa ndigg li modde demal jënd ans ba mu ubbeeku nga dox daagu àdduna amul benn solo lu passé ñu nettali ko mm-hmm. Mm-hmm. mais science tey lim ñu indil ñu nangu ko jigéen mm-hmm. mën na takk or pour mu gën a rafet mais boo takkee or ni ngay jongamaa am personnel boo ko tekkee du nekk benn fekkeel jigéen bu sànca ba toog da nga koy gën a bëgg jox ko cër mais na simee ko ba puudaru ba pare ba nelaw ba xaw a yuut ba nga gis ko dootoo ko bëgg donc jigéen dafay laaj habillage parce que produit bu am solo la diw yaram rek pour sa yaram dund. cent vingt cinq mille chaque weer ñaata góor a koy jënd mu ànd ak saabu. du xeesal de diw rek pour yaram bi dund. nga xam ne tey boo doon bëreeg moom laal ko sa boo paree da ngay am kersa. ngir sa wax li mu marqué ko non pas bokk jigéen laay wax. Mm-hmm. mais poudre yi am na yoo xam ne dafay yokk taat day tax doo màgget am na poudre cent soixante quinze mille. Mm-hmm. am na yuy jar trois cent euros. mais ñaata góor ñoo mën a teg un million pour sa yaram dépasse lay doon. nga waaxu ci marché bi ut loo ci teg moo tax jigéen ñi kenn rafetatu 40 ans jigéenu Sénégal mooy tolloo 100 ans wu jigéenu Amérique parce que jigéen ñi dañ leen dul toppatoo tey yow ku la fi laaj mille francs pour saabu nga ne yàqkat. Mhm. mais non du yàqkat. Mhm. jigéen moo cher. Ah, man nangu naa ko dem opérer sa bopp. parce que opérer bi naturel la. Mhm. bi la ñuy génnee fii taf ko fii naturel la di. loolu naturel mais mais am na ñu ne dafa ay conséquences. en fait non lu ne suñu waxtaan bi am na en fait. non non suñu waxtaan bi am na conséquence nit mën na fee rëcc la kàddu boo xam ne fu mu toll ñu gërëm ko. Mm-hmm. lu ma yóbbuwoon kaso du wax. conséquence la lépp am conséquence. mais que adduna bi jar na loolu. di def loo opération boo xam ne da ngay def yëfi koy dund. man daal nangu naa jigéen bu opéré defari ensemble ba mu baax wàññi biir bi tooj ween yi am doxin bu baax normal daagu nga boole si tuuti caay caay fu góor ñu toog nga daagu koñ ba koñ dem ci kenn sëgg sa pardon. loolu moom jaay na loolu jaay na mais danga war a jaayu ndax nga jar. da nga war a jaay boo ko si takkee conséquence yi ñuy waxee mooy tey jii loolu boo ko si takkee d'ici 10 ans loolu ne c'est pas continué. non chaque demee ba si biir amoo xaalis xanaa da boo gisee jigéen mu rafet mu leer la xaalis la daf la yaram. nga mel ne di béréng di normalement war nga koo tële oto sax ku ko dawal yóbbu ko entretien. soo ko amul ngeen tas.